cadre mission am commission nationale bu yore dialogue teritoire yi daal dina taxawal ab plateforme buy ñëpp ñu nga xamante ne ñoom ñoo jiite gox yee gox goxaan yi bi les plateforme mbëbët jàppale leen ñu mën a lal seeni programme euh, plateforme boo xam ne dañ koo jagleel formation jagleel ko information yi nga xam ne citoyens yi war nañ koo soxla ci euh, liggéeyu gox goxaan yi mais tamit mu nekk plateforme boo xam ne dañuy permettre jokkalante bi échanger entre partenaires ak acteurs territoriaux yi. ngir mën ko amal commission bi dina amal ay formation ngir rek gën a outiller collectivités territoriales yi. parce que dañ jàpp ni génn nañ ci ay élections 2022 am na ay acteurs territoriaux yu bees yu yu yu ñëw baax na ñu mën a waxtaan former nit ñi ba texte yi nga xam ne moo tënk décentralisation. ñëpp am ci euh, euh, euh, ay même compréhension bi. ki jiite commission bi di ñëwaat ci solos waxtaan diggante ñu jiite gox yeeg gox goxaan yi. waaw xam nga boo déggee lépp loo xam ne coow la ci collectivité territoriale yi walla problème dafa fekk waxtaan amul. tere pour waxtaan wi am mooy ñu fexe ba ku nekk gis njëriñ bi njëriñ bi mooy tey nit ñi bu ñu war a lëkkaloo ci ay programme d'intercommunalité bu ñu war a lëkkaloo ci ay programme d' interterritorialité ku nekk ci sa wàll. ngir rek gën a suqali développement territorial bu Sénégal bi les commission dañu signé ab convention de partenariat ak union des associations des élus locaux du Sénégal bi les collaboration dina ñëw rek yokk doole accord de partenariat yi nga xamante ne am na seen digganteeg association des maires du Sénégal ak association des départements du Sénégal.